bokki julli ci gannaaw bu nu sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te teg ci suñu loxo yi moroomi jaam yi lu leen doy sëkk ba kenn tala toppanteeg sa moroom amin donte yàlla mi ngi wax ci alxuraan ne bu ëllëgee ba mu segg li muy segg ba noppi ba yabal balaa yabal aw nit ñu dugg aljanna daf leen di woowaat am lu mu génnewaat ci ñoom te loola mooy benn benn ñuggu ñuggu yu ndaw yu doxoon seen diggante ak seen moroomi jaam donte xamuñu ko woon wala fàtte woon nañ ko ba tuubuñu ko it bala ñoo dugg aljanna da koy tàggale ak ñoom yàlla nañu ko yàlla tàggaleel fii ba suñu dugg aljanna bañ a am benn charte tomb bi ñu fas yéene fàttalante tey gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp ragal yàlla te ragal yàlla googu dafa war a feeñ ci jëfi nit ki digganteem ak moroomi jaamam waaye mu doon laago bu mu làggee boo xam ne ku jaxasoog moom da nga ca ràññee ne kii day ku am ragal yàlla la yàlla ñu ko yàlla jàppandaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag leeraloon leeraloon loon am na kum leeralaloon ci misaal mu yomba jàpp ne ko ndax xam nga luy ragal yàlla mu ne ko ah bu ma xasee ba ñëw fi yow kay xamatuma dara mu ne ko booy dem ci foo xam ne ay dëkk dafa am nooy def mu ne xanaa sol dàll yu dëgër yoo xam ne genn dëkk du ma laal mu ne ko boo bëggee àgg suuf te dëkk ya bari fa nooy def mu ne ko xanaa xool fu set wicc fu amut ak dëkk ma toog ca mu ne ko ngir lan mu ne ko ngir bañ genn dëkk di ma laal waxuma laa di ma jam mu ne ko noonu ngay bàyyee xel di dox ci fa ami dëgg nag tey moytoo toog fa ami dëgg moytu ga ngay moytu ak dëgg noonu lu ko raw ci nga war a moytoo li suñu borom di bañ waaye noonu nga war di wëree itam foo toll anafu ndigalul suñu borom jëm ba ma jëm fa yàlla ñu ko yàlla jàppandalal ginnaaw nag ragal yàlla daa war a feeñ ci jëfi nit ki ba doon ab laago ci moom su laggee ci loola ba ku ko séen xam ne kee laagob ragal yàlla moo nekk ci moom su boobaa ñépp danañ xam ne ku kuy bëgg lu baax a nga noone ku koy wër te ku xas bëgg lu baax te di ko wër day àgg ci ñi muy dëkkal ñim dëkkal ba noppi su jaxasoo ga melee na mu war a mel ak moom day mujj walla leen lu bari ni ku liwoon ba liw bi di ko bëgg a rey muy kof kofi dem tiim ab taal su yàggee tuuti taal bi dana ko walla aw tàngoor ba kum jox loxo sax nga tàng jër ni moom loolu mooy lan mooy ki ragal yàlla kon dëgg-dëgg nit ñi war nañoo mën a mucc ci ay loram lor yi dara jiituwu ca aw làmmiñam wu muy teg ci ñoom waaye ay gëtam yi muy teg ci ñoom waaye mbooleem cër yi nga xam ne day jëflanteeg nit it benn bu ca nekk dana ca sàmm nim sàmmee digganteem ak boroomam ba boroomam du ko gis ci lu mu koy tere waaye nit ñi it dañuy dem a dem ba xam ne dëgg-dëgg kii moom làmmiñam ak i yoxoom bu ëllëgee ak i gëtam xawma lu ko yàllay set laaj waaye doonut lu koy tënk digganteem ak jaamam ñi yàlla nañu ko yàlla jàppandalal mu am nag jàngoro joo xam ne fu mu fekk kuy dund woowu dundin saw làmmiñ say cër doo ca lor nit doo fekk fi ñu koy lore am na jàngoro joj fu mu fekk ku mel noonu moom lay wër moom jàngoro jooju kooku lay wër ba boole ko ci biir daayiraam bi nga xam ne ku ci dugg bu ëllëgee yàlla ñu ci yàlla musal jàngoro jooju nag tasaaroo na ci jamono tasaaroo koo xam ne néew na jataay bu nit di dem ba jóge fa moo xam muy grand place rawatina ca boo xam ne moom mook ay gaayam rek ñoo fay daje ñoom ñëpp xamante yàgg ànd waxuma jataay boobu jataay boobu bu ndaw lay doon waaye bu ko gën a xumb gën koo yàgg moom waxaale wuñ ko moom jataay bu bi nga xam ne mooy bu ndaw bi grand place bari na ñoo xam ne dañuy toog ba yàgg seen kër ñu ne xaaral ma dem ca grand place ba te dikk waaye bu ñu fa àggee bu ñu fa nee jàng ba gaa yi tàmbalee ñëw rek jàngoro gi tàmbali leen a dugg te duñ ko yëg sax duñ yëg ne mi ngi leen di dugg misaal mi mooy ku dugg ci néeg tey fekk gaz bi tëjuñu ko tëj bu baax suy soog a agsi moom dana ko xeeñ lool bu dee ku neex ay bakkan waaye su su su ko jëlalee na fa jàng ab diir day mujj dañ ko naan gaz baa ngi xeeñ waaye dootu ko yëg ndax dugg na ko ba noppi waaye bu demee fu gën a xumb grand place ba it ba ci dëj yeeg màggal yeeg cant yeeg yépp saa bu jotaay ba xawee yàgg bala ñu dem ca dëj ba sax bu ndeyee ca armeel yi rek suñu fa ne jàng di néggandiku ñu waajal ka ñuy taxaw kepp jàngoro ji tàmbalee dugg nit ñi kon daal dafa mel ne jàngoro jooju moom am na doole lool doole ji mu am nag moo tax fu mu dem day fexe ba moom mooy teg ndawal moom mooy teg ndawal jàngoro jooju nag bokk yi mooy jëw jëw nag moom mooy jàngoro ji nga xam ne day yàq ab xol day rey ruux ruux gi nga xam ne nit mënu ko teg loxo sax jàngoro jooju daf koy rey ruux ci nit mooy lan mooy li nga mooy li nga xam ne ci nit yàlla da koo jële ci jëmmi boppam ci dundam gi roof ko ci nit ki donte nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran danañu la laaj ruux mu ngay wax ak a waxaat mooy lan mu ne suñ la ko laajee yow yonent bi neel ki ko ki koy laaj ak ki mu koy laaj ñoo ci bokk yam képp yàlla rek moo ko xam waaye ruu daal mooy ki nga xam ne moom mooy fuñ ne yàllaa nga fa wala dañ ko fay waxtaane waxin la rek yàlla du ko ñu dàkk fenn waaye fee dañ faa wooteel yàlla dañ faa wooteel yonent bi dañ faa wooteel sëriñ bi su naan bëreet di fa dem du ko tey te bu jógee jëm ji lay yóbbaale kooku mooy ruux waaye jëw day rey ak ruux ba mujj fu ñu naan yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi képp te dugguñu ci mbirum kenn di ca wax ab safaan bu mu bëgg a dégg day daal di jóge ci jotaay boobu moom lu ko fa jël lay daal di wax seen wax yi daa metti te dama amoon randiw fexe ba jóge fa ndax du ko bëgg a déggati kooku su boobaa ab xolam dee na ak ruuxam itam wéradi na lool te miin déglu jëw moo ko ko teg yal nañu ci yàlla musal jëw moomu nag lim yàq ci bokk diggante yu jege woon lool mu tawi ko bañ soree lool ba féewoo kenn xamul nu mu toll waaye lim yàq ci ñi nga xam ne bu ñuy lim ak bokk sax doo leen ca boole muy nit ak doomam wala nit ak ku mbokkal ndey ak baay wala ku mbokkal baay wala ku mbokkal ndey wala ku mbokkal ndey ak baay li ca jëw yàq kenn xamu nu mu toll ndax fu mu diggante bu mu fekk mu jege ba mel ne dañ leen a bëgg a kole ndax ku nekk daa am lu ne ci sa morom la mënta ñàkk ba tax ngeen ànd lëkkaloo. bu jëw jëw mën na faa jaar rek tàggal leen ki jëm penk ki jëm sow loolu sax ci jamono yu yàggut yi lool am na ay xare yu mag am na ci bopp mujj na nekk guerre boo xam ne àdduna bépp ko bokk ci jëw la tàmbalee wax ci diw nangam rek diw dégg ko dem àkk ko ñu àkkante kenn ku nekk ay xaritam jàppale ko ñu ne kirtim songoo ba ñax go wow doxe ca lakk gu tooy te sax jege wuñu woon far moo tax dañuy wax ne waroom xam-xam yi juboo nañ ci ne ab jëwkat nim mel ci askan wi mi ngi mel ne pomme de terre bu nëpp ñu bàyyi ko ci biir saako pomme de terre suñu ko ci seppiwut sànni léegi tey lépp nëpp ni moom ndax day law di leen lawaale moo tax ñu ne ab jëwkat ayibam ji gën a rànjiku mooy moom ku muy jëw day yëkkati li ñuy wax toor mbooleem li ñu war a yedd nit da koy yëkkati di ci yedd keneen ku fi nekkut waaye moom mi koy yedd moom moom dara sikkut ci moom moom mooy ki mat sëkk mooy ki dara mankiwut ci moom waaye ñi muy wax di leen jëw mooy ñi nga xam ne ñoom seen dara matut wet gu nekk dañ caa manki dañ caa yées moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mi ngi wàcc yàlla ne jëw ni muy lekke diine nit ki ba dootu dese dara moo gën a gaaw fuuf wopp jooju nga xam day dal nit di dagg ay baaraamam ak di lëndëmal ay gëtam di damm aw làmbal wéradi googu def noonu nit bañ di ko daw ndax bañ ma wàll la nee na ni li ni jëw di def ci nit moo yees loola fuuf ci diineem day dem ba dootu dese dara lu dul tur wi ñu koy waaye naan ab jullit la te fekk yonent bi nee na génn na ca bu yàgga yàgga yàgga yàgg jàngoro dugg na ko ba lekk aw yaramam ba lekkaale diineem te yëgu ko mooy fi mu waxee ne kullul muslimi ala al muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa arduhu jullit bu nekk na moytu mbokkum jullitam ci yii ndax yàlla moo dox digganteem ak mbokkum jullitam moomee àtte leen ñoom ñaar ne yett yii moom bu ko benn jullil jullit laalaal mbokkum jullitam lu dul sharia al islaamiya moo dox a dox ba ne na jullit yépp maa sa jëfandikoo ci jullit bi nangam waaye jullit ak moroom ja képp moom benn sañuta tur deretam ñaareel ba sañuta jël alalam ci lu dul teeyu ba kanam waaye it ab deram it da ko faa war a bàyyil mu ñoŋ bu mu teg ci moom baat yoo xam ne daal ku ko xool ku ko séen di ko ko xoole ba bàyyante ak foñante di ca am am na bés lu siiwa siiw la yàlla woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu ko woo muy guddi laylatul isra wal mi'raj ñaar fukki fan ak juróom benn jëm juróom ñaar ci weeru rajab kasu rajab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba muy dem mbooleem li yàlla bind te nit di ca mën a teg bët ak la nit du mën a teg bët yàlla mën a ne ko gan ba wan ko ko bisu karaw waaye wan na ko fa loo xam ne ci la ragale jëw moom ci la ko ragale ba faw ndax nee na daa dox ba àgg ci barab boo xam ne nit ña fa nekk yàlla daf leen a saxal ay we yoo xam ne we yi ñu wokkutoo ay we yoo xam ne yàlla ma ngi leen ko liggéeyal ci xànjar te xànjar du xumaag du maxe ana lu ñuy doyee we yooyee wokkut rek xasan wokkut sax tuut lay doon waaye xasan mooy di wokkute bàyyi ba xeeb ko jël bant am na ñoo xam ne dañuy wokkut ba yàgg ñu far jël bant bu wow bu ñagas ba yàgg ñu far jaaxaan di xala nga far mel ni fas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñooña seen xarkanam ya la ñuy xusi ca seen weyoo yee ñu def yàlla defaral leen ci xànjar ak seen dënn ya muy gas-gas di nàcc yonent bi ne waaw jibril ñii mooy ñan mu ne ko ñii mooy ña daan lekk yàpp nit yonent bi ne ko yàpp nit nu ñu koy lekke mu ne ko di dagg ci dara ba di lekk mu ne ko am na lu ñu koy defe mu ne ko mooy bu nit kii ñëw ngay ree gàttandu ko ak ñaari loxo bu dee murit mu sujjootal ko ñu sujjootalante ñoom ñaar ñu bokk toog naan seen kafe di wax wax ju baax seen waxtaan du génn sëriñ bi waaye su kenn ke ne wër rek da doon naan waaye mu tàmbalee lekk léegi ci wàcc di teg ci moom kàddu yoo xam ne yi ya cay gën a yomb gën caa sempale mooy la yonent bi defoon def ko fatwa ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ba soxna Safiya ñëwee nuyoo bay dem sol robb bu gudd mu ne ko dëgg war na la ak sab gàttaay robb bi rek boo boo war na la ak sab gàttaay rek bëgg a bëgg a wax ci robb bi waxut ci jëmm ji waaye robb bi yeneen yi ne ko demal fee fexe ba wàcc fa mu dem looju ba mu loojoo dogu yàpp wu mag génn yeneen bi ne ko lii day su reesoon ci sa biir bi kenn mun laa te dem sawara xanaa xamoon ni li xet gi muy xeeñ ñi am ñi neex bakkan dëgg xetam gi ku ko sànni woon ci biir géej gi dana soppi xetu géej gi ba kenn dootu mën a jublu géej gi ndax xet gu bon moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne ci téeram boobu aljawharu nafis lamma li maratin atatha qaalat haadihi tawilun dayluha fa qaat fa saxatat mudxatu laxmin fa xalaf salla alayhi laahu ma haada sharaf bi annaha law hadamat la budda min duxuliha annaara ida almawtu yain xadis boobu mooy fi yonent bi wax ne lamma urija biya marartu bi qawmin lahum adfaarun min nuxaas yaxmishuuna wujuhahum wa sudurahum fa qultu man haulaa ya jibril qaala haulaa alladina yakuluuna luxuma annaas wa yaqtacuuna wa yaqacuuna fi acraadihim wa yaqacuuna fi acraadihim moo tax ñi nga xam ne dañoo jàppe jëw lu yomba yomb ba naan ku mos jëw xam ne Dakar la moo dàq waaye jëw moom du mos a dàq dàq mukk Dakar loo ndax ki nga xam ne da nga koo da nga jàkkaarloo moom wax ko li nga koy wax man ngeen a songoo kur fañante ñu àtte leen jubale leen mu doxe fa jeex waaye loo xam ne nit ki da koy lekk di ko sàqame di wan na muy rees ci biir aw yaramam aw yaramam di ko màggale te yëgu ko su demee yowmal qiyaama ñu peese ko mu diis gann ba taflis di ko ca fekk wa xaddu taflisin la daa man naqada an yatiya shaxsu bi a bi amalin xada kasomi wasi ba ba ba xesa ba téer ba bay ab yaat yi àgg mooy Sëñ Tuubaa dafa wax ne su ëllëgee am na ñoo xam ne nit ñi rafet nañ ci ñoom njort ba defe ne ñey dem ca safaan moom duñ ca bokk te bokk yi li gën a wóor ci koo xam ne faatu na nit taxaw waat ne ma ngi ca safaan moo gën a wóor fuuf yàlla ñu ci yàlla musal nag ma nga ca barab sàngam ndax waxe Sëñ Tuubaa jooju nee na nit nekk na fi waxtu du ko raw wenn weeru koor musu ko raw alalam saabu at mi jeexee wala mu ñoral mbay dana dem ci boroom xam-xam ne ko nu may def ci azaka ak ñan lañ koy jox mu wax ko ko mu defe ko nam ko waxe nañ ko ko waxe fu mu dégg ak bokk guy bëgg a yàq mu dox ca fu mu dégg mbokk moom xamutal mu dox jëm ci su demee jëfandikoo li wolof yi daan li mag daan wax bu njëkk naan bu dee lool li nga yóbbu sëri ca su dee su dee nawet nga jàmmante loolu li sëri ca noor jàmmante ba xool kooko sedd mu dem ñu dem te moo ne booba dem yombi wutoon nii mu yomb waaye ku ñëw gis ko yitte it mu def ca kem kàttanam su dee yitte joo xam ne jibaa koy sottal su fekkee dox ak i tànk moo koy sottal wala téléphoné mu téléphoné ba faatu dundam gépp mu jeexal ko ki loolu ci lañ xam waaye sëriñ bu mag bi nee na nag suñ demee ba àgg ci bis boobu nga xam ne bis bu set dañ koy gën di jege te ñu dégg wax dëgg nee nañ lu sori mooy lu dul ñëw far waaye lépp lu ne la mi ngi ñëw doonti feeg téeméeri at la soreetut moom la alxuraan di wax naan innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba ndax mi ngi ak mi ngi ñëw déparé na fa mu déparé nga déparé fi nga déparé lu mu yàgg yàgg da ngeen di ma sa tase suñ mag bi nag wax ne su àggee ci bis booba yow ma yow ma yooyu bari yow ci alquran yow ma takunu samaau kal muhl wa takunu aljibalu kal ayn wala yusalu xamiman xamimun xamima alquran nee na su boobaa nit dana jël alalam ne ana kuy ñëw ma jox ko ko te mu yàlla musal ma ca lee yubasirunahum yawma idin yawaddu almujrimu law yaftadi min adabi yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fi l ardi jamian su ma yoon ci sëñ bi nag ne suñu àggee foofa bay natt di peeseel nit ñi seeni jëf te peese boobu ci li ab jullit di gëm ne luy am ca bis ba la ci lay bokk wa kas siraati wa kal miisaani buñ ca àggee ba natal ko ay jullee mu fees dell poids yu diis nit ñi ñee ko lool ñu nattal ko ay kooram mu diis gann ay aj makkaam mu diis gann jokk bokk mu diis gann azaka mu diis gann ba lim bañ waxoon ne ku ko am dugg aljanna bi xayri xisaab yàlla ñu ko yàlla jàppandalal ñu ne ko baax na mën ngaa dem mu ne fan ñu ne ko jaaral mbedd mi rek ala tuul doo ko wàcc bu dugg aljanna ay gaay ay gaay jekki-jekki ne xoñeet na yàlla kee bu demee kat ma nga yóbbaale suñu yëf yàlla ne ci lu mel nan mu ne làmmiñam wee dey lam ca wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah kenn xamu nu mu toll lam ca jàng alquran kenn xamu nu mu toll lam ca jàng xasida kenn xamu nu mu toll lam ca werd kenn xamu nu mu toll waaye nag suñuy dar daal moo ko tax a ñuule ne làmmiñam bu ñuule biiram bee itam muy gagar gagar yi mel ni ku toll ci weeram suñu yàpp wi la doon lekk ndax lekk suur lañ ci xam biir bee du biirum neen yàlla rek ko sa waaye nañ ko wàññiwaat yàlla xamoon na lépp de waaye atte moo laaj loolu atte moo laaj lu nekk lu ca bokk bu kooka wàññi ko ñëw ñu ne ko xam nga kii mu ne ah wax dëgg yàlla xam naa ko de yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamaluun wa qaalu li juludihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay su boobaa yàlla du auditer nit ki ni ko waa addunay defe muy indi ay firnde ay këyit yoo xam ne ku ne ku ku ku mu neex ku ko neex man nag ko bindal mu indi ko mu ay firnde waaye yàlla déedéet yàlla suy audité nit du laaj ay këyit du laaj ay document du laaj ay compte waaye cër yi doon def lay laaj su ko defee waa ji bëgg a xuloog yaramam woowu naa ko lu yéen yéen a may def nii te fekk lu ne ñoo ko ànd def ñu ne ko ah ndigal lañ doon wéyee la taxoon kat yàlla dénkuñu la moom wax bokkut ak laa ngi doon def yàlla ne lu ngeen xam ci moom nag ñooñu na nañu fay ndax dañ ko soxla tey dañoo soxla poids poids bi dañ ko soxla ñu ne sa waay loo ci xam mu tàmbalee ñaan ñaan gu mu xam ñaan ko ñu ne ko dara fii moom sa waay amut frais am na lu ci adduna bi moo xam ne boo demee dañ naan la fu ñu dañu fay bind amut ngir yàlla maanaam lu ci nekk day am muqaabil su leen fayee ca lam yoroon te moom la ñuy soxla lu baax lam yor la ñuy bëgg ni moom su leen ca fayee kenn ku ci nekk lam ko amee loon su fekkee diitoon la amoon bu ca diitoon jógee day jeexal takk koñ bu nekk nag yëg ni diw ma ngay fay bor ñoom ñëpp ñëw indi seen dossier yàlla ne ko fay leen mu ne dama amat lu mu leen fay mu ne daa amat lu mu leen fayee yàlla ne lu ngeen xam gaa yi naa ñun ne mënuñ ko baal xanaa lenn suñ poids bii nga xam ne yoroon ne poids seen poids boobu nga xam ne yoroon nañ ko te soxla doy wuñ ko dara ah na ñëwuñu xool ba xam luñ ko ci luñ ko ci jox ndax ñu xaw a woyof tuuti ñoom ñuy jël seen yooyee yañ soxla wutoon di ko ci peeseel muqaabil lu tolloog lam leen amee loon sëriñ bi ne fa saara xamluhu daluuxan laa lahu mithlu fatilin baada nazi maa lahu léegi fa saara xaasiran faqiran baada za lu cay mujj summa yusaqu yàlla nañu ci yàlla musa yóbbu sa wara ndax lu bonam léegi moo ëpp lu baaxam te fekk deret nit ñi la la doon ngañ-ngañaa di leen lekk di leen naan moo tax bi ko alxuraan di tere daf ne bu leen wuññeente ay sutura daf ko tàmbalee ci njort yéen jullit yi moytu leen njort ndax bari na ci njort yoo xam ne la muy jural boroom bàkkaar benn ñaareel ba bu leen wuññeente ay sutura di leen suturaalante sëriñ bu mag bi wax ci téereem bu ñuy wax nahju qadaa il xaaj ne deel musal nit ñi ci saw làmmiñ ndax loo gis ñoom ba di ko wax ci ñoom it seen gannaaw yor nañ làmmiñ ñu ni toll kon del yàddi saw làmmiñ ci ne ko làmmiñ del noppi ndax nit ñi am nañuy làmmiñ ni yow yàlla teg ci ne bu leen wuññeente ay sutura bu leen jëwante ñu ne tekk mu ne ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu mu di ko jooy noppeegut ñu jox ko paaka ak fourchette ak lu ñuy defare ay brochette ne ko daggal ci sa mbokk mi def ko ci bant yi teg ko ci taal bii lekk ko ñu ne ko loolu kenn bëgg ko mu ne jëw mooy lool yaa ayuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan ñu ne déedéet mu ne fa karihtu moom jëw nag mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa dajale gaa yi di ci waxtaan ba yàgg ginnaaw jàngalekat la jàngale léeg-léeg day war a am ay laaj ba xam mi ngi dugg ci gaa yi ngay jàngale wala déet ndax xam nga luy jëw ñu ne ko mooy lan bu bu fekkee lu am la day yàlla ko yonentam ñoo koy xam waaye ñun xamaguñ ko. te bu amutul yaakaar nañ ne du amutul lu amul moom mënut a amutul mu ne leen jëw mooy nga bàyyi ba sa mbokk dem wala nekku fi nga wax ci moom loo xam ne du ko neex ñu ne ko ah su fekkee la ñuy wax ci moom dëgg la nag mu ne loola mooy jëw dëgg moom su fekkee la ngay wax ci moom dëgg la mooy jëw su fekkee la ngay wax ci moom du dëgg nag moo tudd duural ko suñ bi wax na ko ci jawhar nafis téeréem boobu ñu wax jawhar nafis xaqiqatul xibat duna rey bi dikru ko xala sax si bandal xëy moom la yonent bi wax ne dikru ko axaaka bi ma yakrahu qiila afa raayta in kaana fi axi ma aqul qaal in kaana fihi ma taqul faqad faqad igtabtahu wa in lam takun fihi faqad bahadtahu kon jàngoro la joo xam ne ki koy déglu maanaam kii jëw bàkkaar bi mu ciy am ba bu ëllëgee mën na koo indil taflis ci jaamu yàlla am iflaas iflaas mooy perte wala fayit noonu la koy wàlle kam koy nettali muy dégloo kiy wax lam cee jële lépp ki mu koy natt li mu bàyyi ko muy wax ca lay bokk mook moom sëriñ bi wax na ci ab téeram te suul suba ne bu ngeen fekkeetee fu ñuy jëw bu leen ko bàyyee mu àggale la ca rëcc rëcc na ngeen tuub ko yàlla jégal leen ko waaye la ca des moom bu mu ko àggale fex leen bu fël wax ji su dee ku ngeen ko sañal ngeen ne ko kooku ngay wax de da nga xamut ci moom da nga ko xamut baax waaye lu baax dong moo nekk ci moom ku baax am na mag ñoo xam ne fi lañ nekkoon ci dëkk bi dem nañ ba kenn mus ñemewutu jëw kenn fi ñoom ndax boo waxee ci diw dara dañuy rocc ko ndànk dem woyee ko ba mu ñëw ñu ne ko kii de moom nga doon wax ci moom léegi la nga waxoon waxaat ko am na ñu koy def ba léegi. moo tax boroom xam-xam bu ñuy wax alxasanul basri mas nañ koo wax ne diw da wax na ci yow nangam ak nangam ak nangam mu daal di togg togg yu baax togg yu tooy rutab mën naa doon supp wala mu doon ñaari cin yónnee ko ko boole ca lam ci war a àndal lépp kooka gis ko sant lool di delloo si ndab la ne ko yow kañ lañ séq nga di ma yàkkal te lii moom mënut a doon ab yàkk lii togg boppam la war a doon goo xam ne maa ko tax a jóg mu ne ko ah kay yaa ko taxoon a jóg ndax damaa déggoon ne danga maa jëw ma di la ko neexale ndax danga ma sippil lu bari ci lu ma waroon yoon bu ëllëgee moo tax ma yónnee la ko doyut sax danaa ko fas yéene dolli ndax lu tane la ma waroon a yoon soo ma ko teggalee tàmbali ma ko wàññil fii tamaguma foofa moo tax ma yónnee la ko kon koo xam ne mi ngi woon ci moom wala mas naa fekkee fu ñu doon jëwe mën na ci génn li gone yi wax ñaari baat yi ñuy wax ne loolu fu ma ko defee du ma ci génn ku daan déglu jëw wala moom ci boppam muy ab jëwkat mën na ci génn nu mu ciy génne mooy tuub tuub ba ko sëriñ bu mag bi di jàngale nee na bokk na ci ay sartam wa min shurutiha nadamatun ala ma faatahu min almaasi musjala wa niyatun fi ma baqi min al umr adama awdihi li kulli ma yadur wa an yakuna tarika al asyaani in kaana aasir bila tawaal di ko lim ba agsi ci ba ci njëkk muy rëccu fas yéene li des ci dund doo ko def waxtaan nañ ko fi ay yoon waaye daf caa boole wa hakada raddu almazalimi jamia yuaddu min shurutiha inda almutiya mbooleem loo mosoon a tooñ nit nga dem bu fekkee nar ngaa tuub delloo ko maanaam bu dee tooñ mu séddale ko ñaari xaaj bu dee da nga koo lekkaloon alalam te te xamu ko woon nga dem ne ko lii de maa la ko amee loon te bañ jëfletee nangam ak nangam mi ngi nii su fekkee nekku fi nga laaj ñi koy doon su fi nekkul nga saraxel ko ko te fas yéene nag liggéey loo xam ne bu ëllëgee su la waaj a takkee taxawal nga am loo ko fayee ñaareel ba xaaj ba mooy teg ci darab nit loo ca war a teg moom itam soo naree tuub dëgg da ngay dem ba ca moom nga ne ko sëriñ bi waxoon naa la nangam barab sàngam te fekke woo ko woon jéggal ma su la jéggalee jaanam wàcc sa jaan wàcc su la jéggalut nga seereel yàlla sa yéene ju rafet te fas yéene moom la daloon ci waaja bañ laa dalal ci kenn lu feeg yaa ngi dund kon boobu benn ba mooy tuub sa digganteeg ña ngi ko siqal ak yàlla waaye tànk yi nga xam ne ca nga doxe woon jëm ca jalaat ba ca place boobee it nga fexe moom ba say tànk moom du ci dox jëm fu mukk foo xam ne dañu fay jëwe moom wóor na dañu fa jëw nit te mbokk yi moo ne këri sëriñ si lu ci yomb la ñu toog di xaar sëñ bi ñu felli fa waxtaan bu benn waay rombee dugg ñu ne waaw kii kañ la ñëw kañ la dugg ñu ne ah xam ngeen ni muy tax ba dugg kay ndax balaa ñëw day day téléphoné ñu jaarale ko ban barab sàngam barab sàngam mu jaar barab sàngam ak ñoom di dem ci sëñ bi di fa wut lu baax tàmbalee sarse ab safaan wala ñëw fi sëriñ bi mu dugg bëggee na nga ne sëriñ bi kii xam nga ko bu baax mu ne ah kii de miinu ma ko nag xam naa ne sëriñ Tuubaa ko tax a ñëw de mu ne ah dëkk moom dëkkoon de moom nëgë ni si foofu laay yem du ma dox ci diggante nit ak moroomam daal di yàq seen nafsi ya ñu tàmbalee xalaat ci moom wala nëgë ni dëkk mu ma saan jox loxo seen dëkk nga nga doo ko jox loxo moom daal di koy jëw dégtal sëriñ bi jëw jëw ba sëriñ bi nag bu ma lee ne sëñ diw ak sëñ diw sàngam day dal ne nañ ma ko dabal mu ñëw ñu dab ko nga ne kii loo waxoon ci moom sëñ Abdou Khadir mas na ko def dañ ko ne diw dañ koy tooñ ma ne wax nañ dëgg mu ne ah ñu ne ko waaw mu ne kii toog di ab jarabaatama kii di toog di ab jarabaatama moom day ma bokk lépp waa ji daal di tàlle ña rek ne rendi leen ma ñu ne ko kenn du la rendi waroom xam-xam yi nag wax nañ ne yàlla du tëjal nit bunt ak palanteer ba du am fu mu noyyee ku ci mel ni imaamul Ghazali ci Ihya ulumi diin sëñ bu mag bi kum nawoon la ku sëñ bu mag bi nawoon la ba di ko tudd lu bari ci ay téeréem di delluwaat ci moom ak an-Nawawi imaam an-Nawawi Riyaadu Saalihiin wax nañ ne juróom-benn gi juróom-benn yëf a ngi ne yoo xam ne tudd nit fu mu nekkut la te fekk du jëw ko tudd nit fu mu nekkut te fekk tudd kenn fu mu nekkut te fekk du jëw ko ba ci jëkk mooy di tudd kenn fu mu nekkut di ko tooñ nit ñëw nga ne ko ana sa waaj nekk solo ja te fekk da ngeen koo séq te fekk kaf ga di dëgg ku la laaj nekk ko solo ga ni nga ko koy waxee bu teewee di ko ci jëm a génne bu dee lu muy def la noonu nga koy waxee bu fa nekkul ci ko ko war a dégg ne yow ci moom wax nañ ne tooña tooña tooñaate boobu bokkut ak jëw nit ki wala boog di laaj di laajte diw moom lu doonoon bi muy dund lu mu nekke woon ñu di la ca wax lu baax benn mu ñaar ñetteel ba di tudd nit koo xam ne li tax ñu di ko tudd ci jotaay ba mooy safaan ba mu nekkoon ak la ko ci yàlla fayee ngay bañ mu dal ñi ngay waxal nga tudd ko jox leen ca misaal ni ñu tuddee Firawna ak ñu mel ni moom ñeenteel ba mooy di xamal nit ki bi ma wax léegi mën naa ànd ak koy wax ci moom lu baax ngir bëgg nit ñu roy ko di waxtaane Sëriñ Tuubaa di waxtaane magi Sëriñ Tuubaa yi te fekk nekkuñu fi waaye li nga ci jublu mooy wan nit ñi lu baax luñ nekkoon bañ mën ko caa toppandoo safaan ba mooy di waxtaane ku fi nekkut te fekk li ngay bañ mu dal nit ñi ci moom mooy la ko daloon digganteem ak yàlla ngay bañ mu dal jullit yi walla boog ngay wax ci nit loo xam ne moom sax mi ngi dund waaye la muy wax la muy def nëbb ko kenn ñu naan day naan ba mànti ñu naan man kay gis naa ko loolu nekkatut jëw ndax lu mu def la waaye ña koy waxtaanee lañ ca war a jublu dëgg-dëgg mu doon mu bañ a doon jëw mooy ñii muy wax ñii ko fekke loola bañ leen a dal te ñoom bu ñu bu ñu noppee ñoo jóg nag seeti ko jéem ko ca génn ndax yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayab alquran boobu suñu borom di wax lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryama dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanaahuna an munkarin faaluuh mooy nee na li yàlla fabe woon am rëbbam ak yërmandeem gi sori ci banu israil ci làmmiñu sayidna daawud alayhi salaam ak sayidna isa mooy ñoom kuñ mësaan gis muy def lu mu wurta def ba ñëpp xam ko ci dëkk bi dañ naan ah am na ci liberté comme ni ñu koy waxee léegi sañ na ko waaye yonent bi nee na ñun jullit nit ñuy def mooy dañuy àndandoo ginnaaw xamanoo nañ ko ñun ñëpp waxtaanee nañ ko nañu jaral sol suñu dal dem yàdd ko jéem ko caa génne dugal ko ci yoon bu baax waaye juróom benneel ba mooy di tudd nit foo xam ne nekku fa te du jëw di ko laajte ñu naan la ku gàtt ki te xaw a aw jàll nga naan waaw te xaw a leer tuuti ñu naan waaw te xaw a di soox ñu naan waaw te loxo yi bu la joxee loxo ngay bëgg a dee ndax dëgër ñu ne waaw wax nañ melokaanam yépp yoo xam ne ku ko wax mu naqari ko waaye kiy laajte mandarga ki muy laaj mën nañ ko bañ a xam waaye mel nañ ko ci koñ bi waaye yow yi muy wax ci lañ koy mën a xame loolu tam nañ di jëw waaye nag lu mu ci mën di doon la suñ mag bi waxoon ci téereem boobu ma doon tudd léegi li muy waxtaane fen ba wax fen la muy wàññi lépp danañ ci ñëw sax bis daf ne boroom xam-xam yi daf nañ ko juróomi xaaj bii dafa war bi dañ ko sopp bi dañ ko sib bi dafa dagan bi daa xaram waaye daan na nag li ëpp ci waroom xam-xam yi moom nee nañ fen wenn baaxu ca kon jëw wenn xeet baaxu ca kon daal yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci jëpp jàngoro joo xam ne bu dalee nit fii mën naa bañ a xam ne dal na ko kañ la koy xam fekk faj ko weesu na waaye ñun ñëpp ku ne xam na ne toog na fi barab ba tey ñu tudd fa nit ku fa nekkut na ko tuub te bu fekkee moo waxoon su ma nee dem ba ca kooku mu ne ko waxoon naa la nangam ndax day am foo xam ne tuub dutu am njariñ su nit ki demee ba nga xam ne dëkk mal na bar sàq te du wàññiku maa ngi tuub amatul benn njariñ innama tawbatu waxoon nañ ko wala sati tawbatu ba mu àgg kon jëwu ngi noonu ci lu tuuti ci lu bari dañoo dëkk ak moom mu duñu song fu nekk fu ñaar ak ñett daje nii nga xam ne noonu la yàlla daje fépp ba du wuute ci dara maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa maahum aynama kanu noonu la jëwee jëw saña moom itam ba fu ñaar ak ñett daje rek bu ñu fa yàggee tuuti te nekkuñu fi tudd yàlla mu daal di fay dugg wàll ja dugal ci ñoom jàngoro wàll leen ba ku ko ci tuubut yàlla mën na koo def yóbbu ko ci safaan yàlla mu ci yàlla musal ñu ngi ndokkeel genn kilifa goo xam ne fu ñaar ak ñett dajee fi moom mu daal di génnee ab kaamil ne nañ ko séddale bu ñu ko jàngee ba mu àgg damay bañ a tudd xasida googa waaye benn la ci xasida yi gu waay jot baax na waaye moom itam day daal dina cas xasida googa gu gudd la daal di koy séddale ba nga xam ne balaa jeex kenn du fa tala wax dara lu may dañ naan siiw mu jeex léeg-léeg ñu jàng bi bëgg a dajale mu ne nag ku ko nekk ku nekk jàng jikki ba mu yor juróom-benn yoon boole ko yoon moom ko jëkkoon a jàng mu juróom-ñaari yoon jotaay bay gudd lool te kenn du fa sañ dara bu ko defee kafe ga ñuy nekk wala ataaya ji bu ñëwee bu ñu ko naanee ku teg sab kaas ñaan lu ngay daal di def yàlla na ko yàlla may fan wu gudd te wan yoon woowu ay nawleem yu bari ak i moromam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin